waaw daa bëggoon bëri si mais laa ma jël ma woon benn yoon initiative pour pour pour pour bëri ak jàmm léegi mu daw sànni ku bu baax mu daw jiwoon moom daw jàpp ko zongale ko première xam ne jàppaat naa tànk yi jàppal mu def ko deuxième wàcc laa ko kal mu daan mais bërekat la nag de parce que zongale parce que moo zongale mu kepp tànk yi bërekat la ndax ma ko doon préféré su ma ko zongalee ba teg ko su tànk ibee ko dama koy caxabal waaw ma doole car gis nga tànk yi tànk yi bu écarté woon tuuti rek. Mhm. bu ma ko tegee bu bu ma mais daa mën a bëre. Mhm. Mhm. bu rëy ci sa diggante ak nga xamante ni bii yow ban moo nekkoon sa premier grand combat. bii bi le premier grand combat waaw. bés maanaam coow bari lool sa diggante ak jeex jàmm nga ñëw am ci ndam loo xamante ni. ndam lu rëy la keroog nan nga ko dundee. waaw ah, keroog ni ma ko dundee mooy maanaam. làmb ji message journal mooy maanaam yëmbal amul ku des caaro yi géejawaay gunaas guy ga amul kenn ku des Kër Masaar Malika ñàgg ñaxarob ñëpp a ñëw hmm. vidéo baay baala su ma la ko wanee da nga naan ma déedéet sax jeex jaam bu ñëw hmm. vidéo yi xam génne la ko nga xool ko nga xam ne loolu da nga ko waroon yónnee depuis ñu jël image yi non billaahi dama ko fàtte kon hmm. kon kon dama la koy génneel xam nga génneel léegi nga xool amul ku des supporter Diop 2 yëpp a ñëw barke alxuraan yëmbal ñëpp ñëw teeruma xam nga gën ma gën ma sas ma yokk jom. Hmm. gën ma gën ma bëgg loolu li may def. loolu daf la motiver waaw dafa ma motiver trop vraiment roobu sama rongoñ sama rongoñ dafa génn yàlla xam na ko. Hmm. waaw baal xool lii. lii garaaw na de. yëmbal gis lii fii yëmbal la. yëmbal après la victoire de Diop 2. billahi ci digganteem ak jeex jàmm. mais li graaw na de di nga tëllee yoon gis ko mais lii lii lépp di di la xaar gi mu bëgg. ma gën a yokk jom dafa ma gën a yokk jom dafa ma gën a motivé billaahi. waaw mm-hmm. ah, moo tax nag instant yi làmb du ma ko café duma ko fooye duma ma ko caaxaane. Mm-hmm. su ma doon def benn dama yokk téeméer. waaw mm-hmm. ah, parce que li gars naan ay siège mën nga ko luyee mën nga luyee ay sena machine mais nit ñi kenn mënu leen luyee. ku nekk ko jël ci lu baax mu ñëw mu bari moom lañ leen delloosi tey dama gis ne waa Yeumbeul sas nañ ma quoi. waaye mbër sas nañ la nekk loo xamante ni xam nga bokk na ci liy motiver mbër motiver champion ah ku ne xam ne ni Diop de ndaanaan la macha allah je touche du bois loolu waxuma ko de ak lu làmb ñoom ñoo ko wax. neneen booy bi boo ko gëmee mën naa doon champion. mais damay bañ léegi dal yenn xale yi. daan Diop mooy bëri cinq combats am cinq victoires wala six combats six victoires yaakaar ni egg nañu est-ce que loolu yaa koy sóoraale ci carrière bi. waaw bàyyi baax loolu parce que man li may wax li ma waxoon bërki démb rek laa lay waxaat man ku ku ma gis jëmmi mbër bu ndaw laa yor de mais xel bu mag laa yor parce que amaana man su ma naroon def fët sax am naa ay grand yi nga xamante ne nii du ma sigi xool leen te it nekk nañ ñi nga xamante ni sama avancement rek la ñuy wër ku su mel ni Zungule ku su mel ni Diop numéro un mhm. Morfal Baye Sall mhm. i Aline ñeneen ak ñeneen ñoo nga xamante tey jii nii man seen bëgg-bëgg rek laay dox man aw ma sowa mhm. man si adversaire ma sowa kii laay bëreel ñoom ñooy xool ki nga xamante moom la mu làmb mën a booleel. Mm-hmm. ñu ne ma ki ngay bëreel. non ci adversaire kay am nga ci wax nag yow bu parce que booy temps yi sa diggante ak Liss Ndiago coow li na trop moo tax loolu. waaw coow li bëri na mooy làmb ji sax coow li bëri trop mais loolu mooy làmb ji sama diggante ak Liss ku ne xam ne loolu làmb ji. Mm-hmm. léegi Liss lu mu wax. ah nee na temps soo xaar de da la wax. xam mm-hmm. moom da ngay bëgg kii rek kii bëgg kii kii bëgg kii. waaw nee na aada aada Fass sos lay xaar. ku ah mais mais mais bul fàttali liis nag ci ci naaru sokaas la jógee. waaw ñu ko félicité tamit. waaw di ah. mhm. encouragé naaru la. Mhm. Ah, da nga bëggoon da nga bëggoon da nga bëggoon liis jox la sens ci com combat bi wala. non liis kay mënuma mooy sens. Ah, la raw wala ku la ku la kii liis amul lu may rawee si lamb mënuma ko ñaan sens. ko ñaan sens. sa morom la. bon presque peut-être yéen a duggandoo ci làmb mais comme combat yi mu bëri nee la su ma la nee naaru sokaas la mujjee bëreel bokkul ak yow adversaire yi nga mujj yi nga mujjee bëreel xam nga naaru sokaas ak jeex jàmm uute nañu ah su ko neexee moom ne moom damay xaar Ada Fass ak Zoss Ada Fass ak Zoss bu ñu leen neexee ne man bëriwuma ak alors làmb ku ci nekk ci ne sa bëgg-bëgg rek ngay wax. waaw moo tax da bëgg ñii ñii bëgg ñii ñii bëgg ñii kenn mënu si dara lam moo lam moo. mais noonu moo. yow yow yow Diop yow say adversaire nekkul Liss Ndiago rek. nekkul Liss am naa ñeneen ak ñeneen ñu mën a am naa ñeneen ak ñeneen ñu mën a bëri mais ñi si ëpp bu dee bu nga dégg dëgg baay baal la fi may toog di waxee ni ñu si ëpp kuñ seet dangay bañ doon na ko mën a Diop xaw ma dañoo ragal xamu daal nu mu demee noonu daal mais du nuyu waale au passage sama benn grand Pabro. Mhm. Pabro borom yemul mu ne waaw war naa maat combat léegi ah ñu koy ñaanal combat bu baax baax baax Pabro. Mhm. sama jëndal grand la maa ngi ko nga wax combat bi a neex ci combat yi ah Pa Modou Mbaye jëlul ma ko joxal ma la ko ñu seetaan ko ma may ko sa supporter parce que instant bi internet bee nga xam ne xale yi jub dañ bëgg deket borom soow mi. ah man combat bi ma gën a neex sama combat yi. muy sama diggante ak Clémenceau. ah lamb ju ma neex la lamb sa digganteeg Clémence. waaw làmb ji ma neex la làmb ji maanaam dama ko bëree. Mm-hmm. dama ko bëree xol bu neex quoi ma bëree dëgg balaa neex ngay bëree firi sa xol neex. Mm-hmm. waaw làmb ji nekk na làmb ji mu gën a neex sama làmb ji. sa digganteeg Clémence ah Pape préparé combat boobu